waaye nu jëme ci jëmm joo xam ne fàttali ko ko day lu jaadu. salaamaaleykum mbokk internet Ansar TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel di waajal suñu bis bu màgg bii di 17 Muharram tombeek vendredi le 4 août ci weeru tubaab tey nag suñu invité di Cheikh May Amar ki yor programme bu baas Sëñ Gumba Amar di ko dalal ñu ngi leen di bàyyi ngeen suivre seen émission. Hindalaayi auzubillahi mina sheytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog seen télévision Ansar TV di émettre fii ci Touba Darou Khoudoss tey nak di àllarba di ñaari fan ci weeru août ñu fas yéene nag dikk waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne nii mooy xew-xew bi nga xamante ne nii moom lañ dëgmal muy màggalu ko alhaaji Serigne May Amar ñukoy amal euh, fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram di tombe ak ajuma le 4 août tay nak euh, ñu nekk ci suñu deuxième édition du journal magal di présenter ki nga xamante ni moy euh, Serigne May Amar Serigne May Amar nak moy président d'organisateur bi nga xamante ni lepp lo loo ni aju na ci walu baas yi nga xamante ni moy mooy bu mag bi nga xamante moom lañ jàkkaarloo ni ak baas yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër gi yépp ak secrétaire bi yépp mom la mom lañ ko tek ci loxom kon euh, ñu bàyyi ko mu nuyoo sëriñ bi ñu ngi lay nuyu. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, di jaare xalifatul am muy sëriñ Muntaxa Mbàkke di nuyu di jaare sëriñ Mame Amar xalif sëriñ ma Amar di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tànd ko wér comme ni ko sëñ bi waxee sëñ Gumba ñu ngi ci programme màggal gi yàlla def moo dénk ma ci ma nekk président d'organisation bi. waaw maa ngi eh, nuyu ñëpp daal di leen jaare bu baax. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm mu mel ni nag eh, ñu ngi ci waajtaay bu baax a baax màggal gi nag eh, suñ digganteeg moom des na ñaari fan te di àllarba alxames dox fi ajjuma ñu dëgmal ko kon programme bi fu ngeen ci tollu tey. waaw programme bi ñu ngi ci kenn ku ci nekk fànn ba nga nekk moom suñu borom mi ngi la cay dimbali. donc euh, li ma ciy wax fi fi ñu toll ci fi ci toll fi mu toll nii mooy que ci base bi fi mu toll nii ci lañ nekkoon parce que euh, yàlla dimbali nañu indi nañu baas bu mucc ayib ñu ngi ci ndax baas bi mi ngi ni doog a pare tey euh, ñu ngi indi décorer décorateur yi instant yi ñu ngi commencé décorer foofu lañ tollagoon ci nga xam si ni moom la ñu dénk ci wàllu base bi waaw foofu daal lañ ci tollagoon fi mu toll nii. waaw ñu xool ne mu mel ni ki base bi nga xamante ne nii moo nekk suñ ginnaaw ñu jàkkaarloog moom. bas bu ci ayib la sha allah bas bi sëñ bi ci yeen anam ngeen ko topoto waaw comme ni ma koy waxe rek bas moom yaakaar naa ay magal yu bari magal sëñ Mamar jaar nañ fi yalla daan ci dimbali ñoy am ay bas yu bax yu mucc ayib waye te li ñu liñ naan bis bu ne rek. chaque année rek bo defé dara da nga bëgg mu yok loolu lañ suñu borom dimbalé tay ñu am bo ni yaakar na né bañ dalee màggal ci màggalu sëñ May Amar rek léegi suñ borom dimbali nañu ci bañ am base bu baax boo xamante ne nii tey jii bu doon taw ndax période nawet lañ tombel tey jii bu ñu bu doon taw bu neexee nga dugg ci base bi tëdd te doo benn jafe-jafe waaw yàlla dimbali nañu ci moom ndax euh, base bi moom mucc na ayib macha allah koo gis moo nekk sama dareen yi koo gis xam ne base bi moom tey jii bu fekkonte ne ni day tawit lu mu mën a taw mën a taw mën a ñëpp xaj nañ ci biir base bi waaw foofu daal xam naa ne sant nañ ci yàlla bu baax jërëjëf eh, sëriñ bi jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi nga xamante ni nii yéen eh, a jàkkaarloog seen télévision Ansar TV di émettre fii ci Touba Darou Khoudoss ñu nekk ci journalu màggal teew ak ki nga xamante ni nii mooy président d' organisateur bi muy lépp loo xam jëm na ci wilum baas mi muy sëriñ May Amar kon eh, sëñ bi ba léegi ñu dugg ci question yi maanaam organisation baas dafa bëri ay dugg genn loolu lépp ndax jël ngeen ci ay matuwaay. waaw yooyu jël nañ ci ay matuwaay. Euh, ndax euh, wut nañ euh, ñi nga xam si ñoo ko war saytu ñëw nañ gis ko et wut nañ ay sécurité wut nañ lu mat lu vingt personnes yoo xam ne ay sécurité lañ amaan nañ aussi tamit vingt personnes yoo xam ne si nii ay jigéen lañ yoo xam ne si dañ nekk ci biir base bi ñooy servé képp ku soxla lu mel li wax was ak café ataaya xeet yooyu xeet naan yooyu xam si dañ ko ci soxla mel ne ay ndox ak yooyu wut nañ ko ci surtout sécurité bi maa ngi ci insisté bu baax wut nañ sécurité boo xam ne tey jii biir base bi ak biti base bi yëpp du am ay benn jafe-jafe du ko am incha allahu rabbi ah, ñi ngi ñaan euh, suñu borom yóbbu ñu ci ñu àgg ci euh, jàmm ak salaam ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, jërëjëf sëñ bi ba tey ñu jàll ak yow rek ci question yi maanaam dañu nekk ci dëkk boo xamante ni dafa am benn particularité boo xamante nekk na fi muy Touba léegi mu mel ni ki ci biir baag bi tamit ñu waxtaan ci ndax organisation bi nga xamante ne nii yéen a ngi ko ci préparé muy góor ñi ak jigéen ñi de jël ngeen ci ay matuwaay daal ba nga xamante ni distanciation bi nga xam soxla nañ ko ak euh, jaxasoo bi nga xamante ne ni ñu ngi koy bañ euh, yan matuwaay ngeen ci jël. waaw d'abord euh, barki dem xalif bi sëriñ Mama doon na ci wax bi fi jigéen ñi ñëwee fii doon jébbale seen daayira bi waxtaan na ci insisté na ci bu baax ndax nee na sëriñ Mountakha Bachir lim di lëj dëkkam bi nee na moom lay wee te tamit sëñ bi comme que moom waxtaan na ci ak njaboot gi. mi ngi doon sensibiliser nit ñëpp d'abord ñu koy waxaat ci Ansar TV gi ñu nekk sëriñ bi lépp loo xamante ne sëriñ Mountakha taxal Bachir mi ngi koy aay ci dëkk bi sëriñ bi mi ngi koy aaye te mesures yooyu tamit jël nañ ko parce que bu buñ duggee ci base bi nee naa la ñuy saytu base bi incha allah bi dañ xool fi góor ñi war a toogee ak euh, fi jigéen ñi war a toogee surtout nag ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ñu leen di soññaat bu baax ñu moytu seen xeet greffage yi nga xam ne ni ñu ngi koy indi wala ay pose xef pose ongle xeet yooyu noonu xam ñu ngi koy def nañ ñu ci dimbali bu baax nañ moytu di ko indi ci base bi ndax sëriñ Mountakha lépp loo xam ne ni bëgg ko ci dëkkam bi sëriñ Maam Amar bëgg ko ci këram gi bëgg ko ci baasam bi bëgg ko feneen ak feneen kon loolu daal yaakaar naa ne tamit ñu ngi ciy insisté bu baax ñu koy bàyyiwaal xel bu baax macha allah jërëjëf jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloog Ansar TV di seen chaîne de télévision di émettre fii ci tuba Darou Khoudoss ñu nekk ak yéen ci journalu Magal di deuxième édition bi ñu jàkkaarloog président organisateur bi ci wàllum baas yi ak lépp loo xamante ne nii aju na ci biir mu mel ni ki tamit budul baas bi nga xamante ne nii nekk suñu ginnaaw am na yeneen baas yoo xamante ne nii préparé ngeen ko mooy yu nekk ci biir kër gi yi sëñ bi nga yëpp fu ngeen ci waaw jërëjëf euh, base yooyu aussi tamit euh, préparé nañ ko parce que gis nga ñii bala ñu fay jógee incha allah rabbi dañ defar base yi xam si moo war dem ci kër gi. parce que am na base yu war a def ci kër gi yoo xam kilifa yi ci lañu war a ñëw base yu mucc ayib lay doon. base yi base climatisée lañ fay lañ fay indi. ñu ngi ñu ngi programme daal te xam naa ne ñoo dem incha allah rabbi dinañ dinañ ko defar ndax programme nañ base ci lañ war a dalal ñeneen kilifa yi nga xam ak seen mooy base atan kii mooy base bi ci lañ war a ci lañ war a gisante ak sëñ bi daal. jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax macha allah kaddu yi am na solo kon nag bala ñuy tëj émission bi rek di jeexal côté boobu dañ lay laaj beneen question boo xamante ni mooy ndax ku ne base wax sécurité tax sécurité bi tamit ko di lu demee police sapeur pompier ñom ñep jël ngeen ci ay way tax yegg nañ ko ndax avertir ngeen leen waaw lolu mom ñom jotoon nañ seen lettre bu bu yagg dem nañ ci prévé dem nañ ci mairie dem nañ ci maire bu Touba aussi tamit eh, Abdoulaye Ka même eh, ki tay jot na lettre am eh, Galoba am ñing koy nuyu mom tamit de passage donc ñoom ñooñu ñëpp yaakaar naa ne tamit jot nañ seen i lettre te tey jii rek gisante na ma ak préfet tey gisante na ma ak préfet bu Mbacke toog nañ waxtaan man ak moom xamal ko la ñuy sëñ bi yónni ci moom surtout sax sëñ bi ci insisté dañu da ngeen cee demaat bu ne àggee toogaat ak moom waxtaan ak moom ci kër gi la bokk biñ demee sax moom leeralaat nañu lu bari loo xamante ne nii ci kër gi la euh, ma ne ko léegi sëñ bi moom mi ngi lay mi ngi lay waat ci màggal gi jël la xamal ne foofu sa kër la té wax na né inshallah rabbi dina indi euh, sécurité bi fo war ñew yépp bu soobee yalla né dañ ko indi niñ ko bëggé bu yalla né né dañ ko défé nonu euh, ci katnu yalla euh programme bi ci bir base bi manam euh, lan ak lan lañ ci prévoir ci suba gi ba ni mi jéxé waaw euh dañu programme buñ ñu suba inshallah rabbi suba tel euh li nga xamé sé mom la sëñ bi gëna insisté nak mooy ñangu alcorane mi mm-hmm. sëriñ bi daf ci insisté bu baax dañ fa fas wacc fi ay kamil ñaanal ci ñi nga xam si ne nii way daw lii lañ ñi xam ñoo ñoo jiitu sëñ bi insisté bu baax jàngum alxuraan mi ne nañ fi wàcce kaamil yu bëree bare bëri bëri ak ay xasaayit ndax bisum ñaan la te sëñ may amar comme niñ koy waxee rek boo ko lebelee benn mu fay la fukk moom it aussi tamit euh, sëñ bi nga ci loolu bu bëri buñ xëyee suba dañ nekk ci njàngum alxuraan mi ba une heure incha allah rabbi ñu jéem a dem def euh, xew li ñëw suñ xéewloo incha allah rabbi sëñ bi dafa santaane bu yooyu yëpp passé rek sëñ bi dafa santaane ñu dugg si ci base bi bu 16h incha allah rabbi nga xamante ne nii dañu fas yéene jëmal cérémonie bi mu dem ba 19h euh, 20h ndax sëñ bi heure boobu la sàkku euh, màggal gi yem ci ñu ñaanalante ba demee incha allah rabbi loolu daal xam naa ne bokk na ci programme bi nga xam sëñ bi moom la bëgg. kon dal ren moom inshallah allah dañu bëgg bu ñuy julli timis rek fekk cérémonie bi di jeex dal ndax euh, ñi nga xamanteni ni dekk nañ fu sori mëna yewé waaw sëñ bi loolu la ci nam ndax euh, dane dafa bari ay ak njabot ñi ñi nga dekk ba Dakar ak jamono ji ni mel légui ñi dekk euh, kadior kenn kenn ku nekk fa ngay dem kon sëñ bi dafa sakku ci manam bis bi ñu nu mëna a ñu teel ko nga xam timis dana fekk inshallah allah rabbi ñu ñaanalante sëñ bi dal xamna loolu moom sakku nako ci mom Mhm. wa suñ kaddu yu muju suñ question bu muju moy euh, ndax euh, bass bi buñ ñu bass euh, mbolo mi fi daje yep ndax fangu ngeen lu demee ni ndox mu nit ñi naan kay ay ventilo yu upp nit ñi ak tangor weeg yu demee ndox fangu ngeen yoy waaw lool ñu ngi koy ñu ngi koy fagané bu baax bañ ba bi sax lañ ci bëgg def moom <laughs> inshallah rabbi bass bi kilim lañ ci def bu soobee yalla dañ kilim ba bo bo duggé xamné dugg ci bass mu ci ayib dal benen bi ci top moy walum ndox mi aw dañu dem usine ba fa lañ jëlee fa lañ jëlé ndox waaw bëgguma sax tudd publicité <laughs> waaye fa lañ jëlee ndox ndox mu doy te ñoom it te ñu ngi leen di nuyu maa leen di nuyu de passage parce que tamit jàpp nañ ci bu baax ndax xam nañ ne bisub sëñ May Amar la ñu ne lépp loo xam si mën nañ ko ci daan ko ci def jox nañ ñu ba jox loo xam si sax man dafa kawe suñu njor ñoom it leen di nuyu lu bari ndox mi dina fi bari incha allah bi ku bëgg a naan di nga naan ku bëgg a sangu di nga sangu loo ci bëgg rek loo ci namm rek xamal ne suñu borom allah kàddu yi na solo jërëjëf kon sa kàddu yu waaw xanaa di nuyoo rek di di di di wax euh, ñi nga xam see ni ñoom ñoo séq màggal maa ngi ñaan maa ngi ñaan gan ñi nga xam si ne ñi ngi ñëw ñu nit ñu taxawu ci taxaw ci suñ kéemta lay kàttan fépp foo xam ne nit ma nga fa su waree añ na añ su waree euh, lekk na lekk su waree naan na naan loolu maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy wax d'abord ñi nga xam si ne ñoo seex màggal gi beneen bi stop moy ñi nga xam si gan ñi xam dañuy ñew ñomit ñi ngi leen di ñaan ñu ñew ci jamm ak salam mais kep ko xamé ne nii ñëw nga ci màggalu mam seigne May Amar ye aussi nga nga ñaan ci say soxla ndax bisum ñaan la te gëm na ne lepp lo xam si ñaan nga ko fi tam na ko lo xam si lu bax lu dagan la suñu borom dina la ko dina la ko dimbalé dimbalee wasalaamaaleykum rahmatullahi wa barakaatu aw ñu ñi ngi jégalu tuuti nak ndax dafa am question bo xamné dañ ko faté won mu ñëwaat légui ci suñu xel moy ñi nga xamanteni ñom nga andal organisation bi ndax eh, ñom ñep eh, dajé ngeen réunion ngeen paré ngeen ba nga xamanteni ni dara du leen bett waaw ñooñu réunion nañ def nañ ay réunion yu bari euh waxtaane magal gi nga xam si ñoko ñoo def nañ ay ay réunion yu bari barki dem lañ mujj def réunion ci alterné bi donc barki dem nañ Dakar tok nañ fa tamit parce que amna ci bari ñoo xam si ne tamit Dakar dajé nañ fa ñun ñu toogaat waxtaanaat ci mbir yi wo ñi nga xam si ñu ëpp xam-xam ci xéet yu melni nii ñu toog waxtaanaat ñun jollu ñu xel bu baax waaw yooyu moom yaakaar naa ne na ci seen xel dal bu baax incha allah rabbi dañ ko def comme ni ñu ko bëggee ni ko sëñ bëggee dañ ko defee ak ñi nga xam si ñoo jiite màggal gi incha allah rabbi loolu moom dañ ko defee eh, noonu ci ci ci kàttanu yàlla. jërëjëf eh, Serigne Maye Amar ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm nekk président organisateur bi nga xamante ne nii moo jëm yor ci lépp lu jëm ci mbirum baas bi. mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm suba nag incha allah danañ amal benn plateau boo xamante ne nii danañ waxtaanee ci li nga xamante ne nii mooy borom màggal gi ak ki ko waral muy alhaaji Serigne Mbaye Amar kon mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo woon seen télévision Ansar TV di émettre fii ci Touba Darou Khoudoss ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox dig daje suba incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh من قلبي تباهوا بجاي وسياتين واقدار أسري لي القلب فلتدخل معرفة قوى صبر والأولى وإجبار